El Hadji Ahmed Aidara a xew ca Matam ge ah doy na waar terminé yéene kaay ne benn gaal goo xam daa suux day waaw ca Matam ah ñetti doomu aadama day ñàkk nañ fa seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, maa la ko te ay xale la de am na ñaar fukk yoo xam ne nag dañ na may kon réer la ilaha illallah te dama ne la bilan ba day boo sàgganee nag mën naa gën a diis mardi tali mardi tali l'observateur ne dëgg la ñetti doomu aadama laa ne kon ñàkk nañ seenu bakkan de ñaar fukk ak juróom ñaar yoo xam ne nag maanaam kon rawale nañ leen te loon dawal gaal ga kon police su Mauritanie ba kon mujj na koo tegub loxo la ilaha illallah terminé yéene kaay ne may ma ma yeggali may ma ma yeggali am na ci ñaar fukk yoo xam ne kon dañ na may kon réer ma waay waaw ñett ci ay xale yoo xam ne day ñoo ñàkk seenu bakkan ay laay la la benn Mauritanien eh, ak ñaari sénégalais laa la wax te jamono joo xam ne na ñu ngi yokkoon musiba mbaama kumba boobee am tamaata waaw musiba mbaama kumba day am na kon ca Tambacounda ubbil vox populi bi nenu day waaw marché nga xam ne moo nekk ca Tambacounda googe daa lakati lakk maa ko wax seetlul benn a de dama ne la sow ba penku bët gànnaar ba bët saalum waaw ba ci digg réew mi daanaka marché yu baree bari kon dañoo lakk laa la wax aha ma limal leen marché central Ross Béthio ge lakk na marché Ocass lakk na marché di lente Ziguinchor lakk na marché Ndumba Fall ca Njaareem ge lakk na marché Seng ca Kaolack ge lakk na marché central ca Thiès lakk na marché Moussante ca Thiès lakk na Ndar lakk na marché Pikine ca Ndar lakk na marché Thiaroye gi lakk na Sandika lakk marché Sandaga lakk na ak marché HLM Guèye lakk na yéen kaay gi ne waaw lan moo tax ba marché yi di lakk ni looloo jaaxal ñëpp yi bon yi moom fan lay jugee looloo jaaxal ñëpp directeur fa ne en tout cas wàllum njuuj njaaj day waaw ak wàllum tappale de mbirum fraude eh, am na ci garab yi bon yooyee nga xam ni kon ni ngeen di dugal dama ne lu tolloo téeméer ak ñeent ci ay milliards boo sàgganee a waaw dañ koy jéem a eh, waaw wàllum faux médicament yi waaw walaay la nekk ca biir yi waxaguñ ko dee déedéet xanaa xamoo leen ne of nag ci boppam waaw daal dinay yëkkati waat nag wàllum justice ba daal dinay bind tamit procureur de la république sëñ ba suru gay doy waar li doy waar kay évidence seen kaay daa feebar te feebar mooy yorin guñ ko yor sans gestion couverture maladie universelle sésame hémodialyse diabète waaw waa Abdoulaye Diouf Sarr mi moom lan def looloo jar a Omar Gueye lan def looloo jar a Dakar Times Omar Gueye ca am de Jeune Afrique moo ko moom nii rek lañ koy bàyyi nee ci benn opération jaay ay arme di ay ngànnaay ar di taali ar di taali yéeni kaa nga lan moo ci gën a doy waar waaw ma ne la la presse di journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Cameroun gee waaw nee nañu contrat boobu ñu koy signé day 2010 te 2010 yooyee waaw dama ne ma nga woote opposition ba Omar Gueye ministre ci kaay ne dara ay kàdduy sos la ay kàtti la nekkul dëgg exclusif yéeni kaay ne lii man de damaa mësula yëngu sax ci wàllum njënd ak ay ngànnaay booy benn ñaar benn compte la am ñett Cameroun dama faa mësula teg sama tànk Dakar Times te xoolal ma rek fi ñu tuumaalee kon Omar Gueye bi ñuy waajal remaniement bi remaniement boobee libération yéen a kaay nee na tey ma wax leen nag lan moo nekk ci bopp président Macky Sall de ah xanaa xamoo ne coow li bari na de nit ñaa ngi wax rek conseil des ministres bu mujj bi la tey la waaye démission collective serment ba pare kan mooy nekk ministre kan la ñuy dàq loolee moom Macky Sall rek moo ko xam l'observateur ne li ma leen waxtu lañ Macky Sall tey lay tàggatoo nag ak ay ministre am tey mooy conseil des ministres bu mujj ba Sud Quotidien ne conseil des ministres bu mujj ba tey la dee premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne tey waaw juróomi atam mat na quinquennat mat na tey lii tey parti socialiste le quotidien yi ne kaa Bamba Fall day waaw ñibbi na kër bàyyi dama ne Quotidien maa ngi PS parti socialiste Moustapha Diakhaté APR ci Les Échos yéene kaay waaw nee na Macky Sall bu fi jógee kat moo koy wutoo kat mooy numéro deux mbirum doppi naa googee lañ war a teg suuf gis nga Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf mi ko fi doon jéem day réccu nañ ko de maa la ko wax Macky Sall yiteem lenn la mooy organiser APR waaw waay 24 heures yéene kaay ne parrainage bi ci élection locale yi waa wala déet ay dëmboo day nee na déedéet d'accord dee déedéet waaw nee na loi parrainage bi ci boppam kon lañ fóor a jëlee exclusive yéene kay ne waa Pikine day waaw nee na ñu ñeenti ministre la ñu bëgg ak ñeenti a généraux eh way Samba mbete ko yor sa nagu tong-tong enquête yéene kay ne wàllum plasia ak di ko tudd rek ci ay kalaame colonel Ndaw day waaw benn milliard lay laaj Bougane Gueye a ëppalaw Bougane Gueye Dany tuumaal na colonel Ndaw mi lée ne da koy sosal waxal ko lu dul dëgg réew mi quotidien ne ko mujjee def ca kaso ba day waaw Ismaïla Madior Fall ministre de piège maanaam maajoor daal yoonam nekku ca loolu la wax Khady Diop Sow day responsable politique la mu waxe tribune yéene kaay waaw mooy jigéen ñi waaw fa ñuy nasee ko notti ci instance de décision yi day waaye borom musóor yi dañ faa war a yegg loolay dëgg liy dëgg kay la solo yéene kaay nee aji màkka gi waaw paquet bi day deux millions six cent mbir mi danañu ko door juróom-ñetti fan ci weeru avril premier vol day le 28 juillet ko jàpp aji màkka déwén Sénégal Mali day waaw gay day suqi nañu nag seen Mali ya ah. les ko yéene kaay ne déet Sadio Mané kay leen suqi ci juróomi minutes tribune yéene kaay ne ay eh, waay ndax yàlla waay Sadio Mané tàkk na démb les ko ne ko mbay jaaj waaw kenn gaa ñu ko ko dul terrain ba de terrain Léopold Sédar Senghor gén na moo tax ba waa ji ambulance lañ ko génnee kon ca stade ah. <laughs> alaaji ñaan yàlla gañe coupe d'Afrique bi rek mais lii dee buñ ko gañee yàllaa dikk rek waaye li ci jeu bi li ci pelouse suñu terrain yii xaayaar ku dégg boo ma ne la alaaji